Voilà, merci beaucoup ami fidèles euh, internautes de Dakar Buzz euh, VIP People ça fait plaisir ma toogaat ak moom toogoon nañ ci yeneen jotaay mais tey euh, yaakaar naa bu particulier lay doon ndax ñu ngi ci boutique Bamba partenaire relation ak Bamba partenaire ak fan yi ñu gis ko mu génn Euh, wax wax ji Sénégal yu bari ne ko pourquoi nga wax wax jooju ak drapeau Amérique kuy xeexal Sénégal da ngay takk drapeau Sénégal euh, Sankara ñu ngi lay xaar bu baax baax di la jox sa wàccuwaay. frère ziar naa la waa Dakar Buzz maa ngi leen di sargal di leen jox seen wàccuwaay di leen bëggee bu baax a Euh, frère sa digganteeg euh, Bamba partenaire ñu doon xale boo xamante ni mu ngi mi ngi bay waaram euh, tey tey Sénégal yu bëree bari peut-être ndaw ñi amuñu maanaam opportunité pour di di di créer mais Bamba doon xale boo xamante ni mi ngi créer di ay employé di leen fay tey boo gisee lu mel noonu. yes macha allah macha allah partenaire nekk un frère nekk un jeune. boo xam ni dafa nangoo daan doole nekk koo xam ni fa tabaar fa kàlla macha allah rôle modèle la ci société bi nekk na koo xam ne royukaay la parce que boo xoolee mi ngi commencé ci suuf tey ba toll fii ci haut niveau bi donc royukaay la. Euh, maag moom nag ñu bokk lu bari. ñu bokk milieu bi macha allah bokk ñoo xam ne tamit ay nit bokk tamit saa yi ñëwee nekk Amérique ñooy nekk. you know li ci ëpp ci fashion yu mag yi euh, bés yu mag yi saa ñëwee Amérique ñooy nekk. yo moo tax daal dama koy wax macha allah macha allah bamba euh, li muy def euh, war naa inspirer la nouvelle génération pour ñu xam ni euh, ndaw warut a xëy di toog rek war na am ci lu mu jàpp war na def entreprendre pour mën a amal lu moomal boppam mhm. waaw lool loolu moom loolu moom lu war la bépp doomu aadama bu nekk ci kaw suuf rek surtout nga nekk góor danga nga war a nekk ci lenn nekk ci lenn góorgóorlu daan doole parce que yàlla ñëpp la fi nekkal you just gotta believe it you know and day baax day baax mais daal macha allah bamba Euh, ñu gis acti euh, actualité politique nga génn wax euh, sénégalais yu bëree bëri ne waroo wax parce que yow bu affaire yi méttee da ngay dem toog États-Unis jàpp sa njàmbur bu réew mi di tàkk du la fekk nga bàyyi ba affaire yi sedd nga door a ñëw takk sa drapeau Amérique di kaas. <laughs> xaw a gars yi moom kenn mënu leen tey ba wax. you know auparavant dañ doon wax naan yaa ngi Amérique di wax di wax di wax ñëwal sur le terrain tey ma ñëw sur le terrain gis nga dañuy continuer di wax you naw boo kër gu mag la te kër gu mag bu fa mbër mu ndaw feeñee day bari coow loolu daal la. Mhm. mais drapeau Amérique mu nga takk di xeexal Sénégal. drapeau Amérique gars yi ñoo gis ni drapeau Amérique takkuma drapeau Amérique sport laa jógee si kër góor gi foofu laay entraîné benn euh, hoodie bi ma soloon dañ fi def drapeau Amérique lool rek la mais jëluma drapeau comme niñ ko réyalee naan drapeau Amérique la yor you know bëgg la ruube mais demewul noonu yëre bi ma soloon moo am drapeau Amérique loolu rek la. naka ngisee situation politique gu réew mi parce que ndaw ñi ñenn ñi daaj nañ Auchan yi ñenn ñi daaj nañ ay boutique jàmbur ñoo xamante ni seen yoon nekkul ci xeex bi euh, est-ce que problème bi mënut woon a yam diggante Sonko ak Baye Magna pour euh, par rapport ak yenn gars yi nga xamante ni ñoom dañuy toj boutique jàmbur yi waaw c'est triste nag wax dëgg yàlla euh, neexuñu ci li nga xam ne fan yi moo xew bu ñu sañoon daal jàmm la ñu bëgg waaye daal li ñu mën a wax rek jàmm ñu bëgg jàmm ñu bëgg ci réew mi te kii yor yat bi di dóor nañ ne ko na yi ah moom moo war a arrêté dóor yi su ko fee ñëpp amaat. moo bi ah. yor bi. nguur gi ñoom ñoo yor yar bi di door kon nañ nañ nañ arrêté nañ nañ arrêté dóor yi ñuy dóor ñi ñi mënuloo ma nag di ma dóor ne ma nii ngay nii ngay jooyee wala nii ngay yuuxoo képp ku ci perte sa business rek wax dëgg yàlla ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy méttitlu ce sont des dégâts collatéraux ñi ngi koy méttitlu ñi ngi leen di masawu ah Auchan yi tamit loolu rek prouve la prouve la que nii nii xale yi dañoo xiif parce que buñ duggee Auchan amul arme Auchan amul amul amul amul bomb Auchan leen rek moo fa nekk mooy lu ñu ñi mën a lekk cela veut dire que ni la jeunesse a faim on a faim dañu xiif moo tax ñu dem di fa jël ay bonbon ay ndox yooy rek la ah, mais est-ce que situation bi du dégénérer bientôt le 30 euh, gars yi war a jàkkaar Sonko ak Mame Mbaye Niang a jàkkaar la waat euh, yaakaar nga ni émeutes euh, yi amoon ci mois de mars dina fi amaat ñaan ñu ko yàlla de jàmm la ñu bëgg waaye ki yor yat bi di dóor daal nañ na ko arrêté dóoree ndax suñu frères yi jàpp nañ ne ñi ngi ci kaso bi nit dof mi ngi ci kaso bi ndongo Diop ñi ngi ci kaso bi y a des centaines des centaines des centaines de jeunes yoo xam ne ils ont ce droit de manifester loolu lañ leen téyee ci kaso bi léegi nag nañ leen bàyyi ku ki yor yat bi di daal bàyyil ki yor yat bi di dóor bàyyil ñi ngay dóor loolu daal lañ mën a ki yor yar bi de jàpp naa ne yow Macky Sall ngay waxal waaye amul problème ma nga noonu euh, mais ban conseil ngay jox ndaw ñi euh, ci li nga xamante ni moom mooy xew ci réew waaw ñu góorgóorlu ñu góorgóorlu ndax ñu ñëpp jàmm la ñuy ñaan ndaxte fépp foo mënti nekk rek jàmm nga soxla bu jàmm amul doo doo doo doo mën a def say activité tey li ñuy def nii bu ñu amul woon jàmm duñ ko mën a def waaye ki yor yat bi di dóor boo bàyyiluwul dóor yi ñii ñi ku leen xërtal ñu song la àdduna moo toll foofu boo ñu mayul jàmm duñ la may jàmm boo ñu mayee jàmm nag am jàmm mhm. yes I thank you mhm.